wal maaliku alladi lahu tamliku ajran kabiran wa sawaban wa jaza wal wahdu li fi ramadana najaza ajru alladi ma indahu la yanfadu wasala li wa ma tarahu nafadu xidmatu xayril aalamiina ahmada alayhi taslima karimin humida farrahatil qalba wa nafsi tayyabat wa bi makaarihi li ghayri dhahabat yasurru khayral alamin qalami alayhi taslima muzilil alami lil mustafa wajhatu ma li qaada nafhan bila madaratin fan qaada huwa shafiihu wa huwa shujaahu bihim ma zulmi wal awjaahu محمد صلى عليه الله في الآل والساب ومن والاه مها بلائي ومها أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا قلت له كليتي في العلن والسر وهو ليقاد ولني rafaatu xidmati ilal wasila salla alayhi man ara tafdila rafaatu xidmati ilal maahi sanad wali siwaana saaqa kulla man fanad huwa nabiyu warrasulu walxalil wa huwa alhabibu wa yukassiru alqalil taslimu baaqin laa yazaalu samada ala nabiyi warrasuli ahmada أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد أبقى سلامي الكريم الصمد يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إلي جوده يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جهلت الفطر فوق الصوم jitu bi dal qasidi shaakiran laka bihi wa qablu li yaqtafat laka zintu qasidati tihi sukura walam tazal ya maliki shakura akramtani ikrama man ma sha fa'al wa kullu ma aradtuhu min kan fahal aataytani ya rabbi min ladunka dhikran hakiman faraditu hanka باركت لي يا رب في حروفي وغيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد لي التبصير والتكريم أهتيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الدر موت ظلما كافأني من ما له كفءا أحد bi maa li xayrihi saaqa kulla man jahad akramani bi qul huwa allahu ahad rabbi walam yakun lahu kufuwan ahad naajaani allahu almukarrimu samad tanaajiyan bihi kafaani alkamad wa jahalil akramu anfa alkaram wa darari bi gayri raddin lin saram asaluhu kawnatihi alqasida xaariqatan li haadatin mufiida yaa hayyu yaa qayyuum salli bi salaam ala alladi jaa bi ahsani kalaam ala alladi jaa bi ahsani kalaam salli wa sallim wal taqabbal dal kalaam mun ala qaari'i dil xuruufi bima yafuuqu zanna min mahruufi linaazimi al xuruufi xallidi rabaax yaa man kafaahu dal xuruuri wan nubaah waliyu